chamboulement administratif ah. c'est-à-dire euh, affectation sous-préfet préfet gouverneur euh, au niveau de la Sénat conseil constitutionnel suñu problème ñun ci suñu gouvernance defe naa suñu administration moo doxul c'est l'administration sénégalaise elle elle ne marche pas nañu waxante dëgg ñu xool euh, pourquoi ça ne fonctionne pas pourquoi l'administration n'est plus ce qu'elle était il vingt ans trente ans il y une crise de de l'administration bu nekk fii c'est pas par les déplacements wala par les mutations qu'on va régler les problème de l'administration mhm. foofu foo laal tey ji muy euh, sous-préfet bi préfet bi même école bi université bi mhm. état bi ci boppam l'administration ne répond pas à ses missions publiques donc c'est important def naa que nit ñi waxtaan ci euh, sur la question de l'administration mm -hmm. comme nu ñuy waxtaanee école comme nu ñuy waxtaanee euh, politique mhm. mais l'administration c'est un problème qu'on a on a une faiblesse de l'administration peut-être même mhm. suñu ñëwee ci sujet gan yi mhm. euh, bari na jeunes yu am initiative def seen projet mais ça pêche au niveau de l'administration la, la, la gestion Tout administrative ça vraiment c'est un problème sérieux bi ñu am euh, au Sénégal malheureusement pour l'administration bon presse bi lu muy coow mooy que euh, loxo politique dugg na lool ci administration. Mm. Mm-hmm. loolu moo paralyser suñu administration. président bu ñëw day placer nitam euh, ministre bu ñëw day placer directeur bu ñëw day placer bon finalement c'est un rouage. dans dans lequel tout le monde est et ça devient politique partout. et defe naa loolu wàññi na doole euh, administration bi beneen aspect maintenant puisque ñu ngi dem ci élection je pense que presse bi lu mu jiñ lu muy wax ni mooy que est-ce que amul lu nekk ci gannaaw déplacement des préfets des sous-préfets mm-hmm. tu vois suspicion àgg na ba foofu un un sous-préfet euh, c'est c'est normal d'ailleurs que mu am euh, affectation dans l'administration mm-hmm. mais malheureusement fu ñu toll nii il y a trop de suspicion mm-hmm. à cause de la politique politicienne et je pense que problème administration c'est un problème très très sérieux beneen problème